Assalamualaikum guys, ini ngi leen di siyaar bu baax di leen wax ngeen dal jaamu sport champions league bi aman nego nañ di ci ne bi ci noone mën F Paris dina dina ci bokkal ku ci mën Dortmund AC Milan Newcastle aussi ñu lim benn poule bi nga Barça Barça bi nga ne ñaari saison yu génn am na jafe-jafe ndax dafay dem ci Europa League bi ñoom ak Porto la San Royal Antwerp espero que les hommes de relever bi dem ci huitième de finale bi nga xam ne foofee lañ leen daan gis première journée bi dina ko joxoon di 19 ba 20 septembre 2023 et que jàpp leen ki nga ne mooy Philippe ndax club boobee léegi mu amal déggoo Aston ñi may bëgg lim mën naa ne atum ñu bëri jàppoon nañu vraiment c'était la fin de la carrière muy Sterling bi mi ngi wane bopp ci bi ak waa Chelsea Isco de même que voilà mu dem. yi Séville wanewul mucc ayib waaye nag Real Betis moo ko jënd muy relancer carrière mi ngi wane boppam de même que kii nga xam ne moom mooy voilà Hazard même passage am foofee ci Real de Madrid muccul dara. club bi mooy Crystal Palace mi ngi ci yoonu dalal ko ginnaaw gi biom bi mu dugal voilà contre Dynamo de Kiev moom meen mooy la Camerounais bu Boubacar moom kat dafa dem ba ci coach boobee di célébrer biom li ko waral nag mooy que coach bu ñaan. Mercia Lukusku kursubu Samba Diallo limi mu yëkkati woon ay kàddu li mu woon ci ay kàddu dafa xaw a ñagas lool ñu bëri jàpp nag c'était raciste mooy que ñoom kat voilà mu ne bañ doon Besiktas dafa am impression que du équipe Besiktas bi kat dañ doon jàmmalal waaye kat une sélection africaine liñ fësal ci xibaar xam ngeen ne kilsi am nañ lool ay koppar yu takku lool tot nag mi ngi xalaat xalaatoon nañ bu baax nag mën na Jamal Musiala FC Lorient ñu ngi ci yoonu kat ñu abale la portier sénégalais bi nga xam ne mooy Alfred Gomis mu mu ndara bawoo foofa ci Stade Rennais waaye nag bu ñu ko abale doom benn option d'achat mooy que bu jeexee dafay delluwaat ak club bu Rennes bi jàpp leen bu baax si teel a kaa foofee ci Italie ci Série B bi ak club bi nga ne mooy Como ek club bu Bamba Dieng ba ak Formose Mendy dalal nañ ci Mouye Bakayoko Manchester United bëggoon na ko lool waaye club mooy Fulham kat dafa bëgg accélérer mbir yi ci doomu marocain di Sofiane Amrabat ñoom pare nañ fay waa Fiorentina 30 millions d'euros bu soxandikoo ci Di Marzio doon nañ lim kat mën a quitter Manchester United waaye ki nga xam mooy Erik ten Hag moom kat dafa jël ndogal garder. Uruguay bi ñaan fa kundo Pelistri Unai Emir ba bi jël Aston Villa ñewon ci jafé jafé ñu dàqoon ka nga xam moy mooy Gérard mu ñew fu nak jàpp leen bu baax ñu terminé ci classement bi mën na leen may ñu débara ci conférence league bi kon ñom qualifié nañ ginaa gi bañu ñu aller retour Iber ñaan aller 5-0 retour 3 0. le brésilien bu ñu naan Murillo jàppaleen quitté na Corinthians foofee ca dëkkam signé ca Nottingham Forest montam ñu xayma ko ci 12 millions d'euros mu xaati fa contrat ba 2028. toujours ci mercato bi 24 heures moo dese mu dajee buntum en Europe Santiago Bueno quitté na Girona en Espagne signé ca Wolverhampton kon l'Uruguay boobee montam ñu koy xayma ci 12 millions d'euros Teden Menji l'anglais boobee quitté na Manchester United signé ca Luton Town la promis. Burnley def na benn offre bu 20 millions d'euros fekk waa Leeds United pour kuñ naan Crescencio Somerville waaye nag les Pickfords ñoom la ñu repousé proposition bi ñu soxandikoo ci Fabrizio Romano bu fekkee dañoo bëgg a pallier potentiel départ João Palhinha Fulham nag mi ngi renseigné ci waa Tottenham bu ko defee ñu mën leen jaay dañoo refusé bu ñaan Pierre-Emile Højbjerg le euh, néerlandais benn mooy Ryan Gravenberch jàppaleen quitté na ca Berne utile ca Liverpool montant transfert bi nag ñu xayma ko ci 40 millions d'euros xaatim fa benn contrat bu 2028. ci ñetti mercato yu génn nii kon Chelsea avec Todd Boehly dépensé nañ la tollaal 1 milliard 78 euros ci marché des transferts yi. Erling Haaland moom lañ tabu meilleur joueur de la saison 2022 2023 par l'UEFA bu fekkee Michael Sunak euh, mooy la. L'Espagnol bi nga xam ne mooy Pep Guardiola ginnaaw gi ba mu gàddoo Champions League avec les Sky Blues. Tottenham demu Harry Kane bi dafa mel ni kat voilà neexu leen dara ndax Levy Biel moo ne woon seen président voilà bañ na ba sonn waaye proposition bi mucc ayib moom mi nga xam ne joxante na fa mën naa ne ay at yu takku lool angale bi nag dafa bëggoon dem seen centre d'entraînement pour tàggatoo leen waaye kat dañ ko ko gàntal dem na sax ba bëgg jël ay bagages am ñu ne ko déet buy soxandikoo ci sa Telegram bagages yi dañ ko ko yónnee ah dañ ko ko yónnee lay wax sax ah en Allemagne. léegi leer na Romelu Lukaku abale nañ ko fa ci AS Rome ñu présenté ko nag moom nag voilà dañ ko fa abale waaye amul benn option d'achat. Mauricio Pochettino ci ay kàddu mu ne nag dafa bëgg a gagné League FA Coupe Carabao Cup kon buñ ko déggee bu baax a baax mooy triplé la bëgg amal en Angleterre. bu ñu soxandikoo ci The Mail club bi mooy Al Ittihad ci Arabie Saoudi ñoom nag noppi nañ fay 118 millions d'euros waa pour bu ko defee ñu mën leen jaay la forme bi nga xam ne mooy Mohamed Salah. Chelsea liñ fësal mooy que mën na dakkal contrat bi dox seen diggante ak euh, la bi national bi mooy Malang Sarr jàppale nag. moom club yu ci mel ni Fulham Nottingham Forest ñu ngi ci ginnaaw patem bu bi nga xam ne wane woon na boppam ci saison bi génn ci national 2 bi moo jot fa jowante 20 match amal 8 bi avec les Lyonnais ñu yéegal ko ci équipe A bi waaye nag voilà naam def na pré-saison bu mucc waaye dafa ma ne coach bu Lyon bi compté wul ci moom ba tax naka dafay def ses valises kon dafa nar a quitter et que cette fois ci définitivement passionné bu Dakar Sacré-Cœur bi dafa nar a club bu belge bi nga xam ne mooy Molenbeek beneen club belge bi mooy la Gantoise ki nga ne mooy Noah Fadiga ma ngi fay doxal jàpp ni ba moom sax jot naa jongante ca match ba une trentaine de minutes ñoom jot nañ qualifié ci li nga xam ne mooy Ligue Conférence pour cette saison et que kenn mooy Aliou Cissé war a jonte contre les Fenech d'Alger 2023 ci stade Jombo Abdoulaye Wade ca Diamniadio waaye nag ñaar ñaar doon nañu ci sént bu baax a baax muy Andy Diouf ak kenn mooy Diarra voilà wóolu nañu ci France espoir yi kon voilà dañu mën a ñëw avec les lions de la Teranga waaye nag comme ni koy waxee mooy que ku nekk am nga sañ-sañ def sa tànneef ndax ni wulaw paak sont des binationaux il a le plein droit ñu dem joŋante fa waaye nag lii ñi nga xam ne moom la ñuy ñaawlu mooy que ñoom ñi nga xam ne voilà sans doute seen rêve moo ñuy joŋante avec les tilikoro ci kibaar bi waaye nag bu ñu demee ba affaire yi dëgg ñuy door ñuy door a dellu ginnaaw du jouer pour leur pays origine est-ce que loolee mën nañ ko gàntal c'est une grande interrogation de même que boole na ci kii nga xam mooy Sékou Mara les joueurs de Southampton waaye lu ci mënti am Sénégal manqué wul talent Amna jeune yi nga ngi ci ginnaw de même que équipe réserve sax nga mën tuddee ñam ñoo wara a contre Rwanda comme ni koy fësalee ko ci wone sa bopp mën nga am chance bu baax baax boku figuré ci prochaine liste bu Aliou Cissé la balle est dans leur camp ma rappelle ko Lamine Camara ak ki nga xamné mom moy Abdoulaye Niakhaté le défenseur central formé ci Dakar Sacré-Cœur leen xaar ci liste bu el tactico bi